لله رب العالمين الحمد لله ملء السماوات والأرض comme niñ ko aadoo woon saa yu ñu jëlee lenn ci dundu saxaabatul kiram diggaloo ko benn waxtaan tey ñu tànnoon waxtaan ci màggaayu yàlla subhanahu wa taala di waxtaan woo xamante ne néew na nga dégg ñu ne tey dañoo am thème waxtaan la conférence tem ba mooy màggaayu yàlla ñu ne thème bi mooy màggaayu yàlla loolu euh, sikk sàkk amul ne ci liggéeyu Iblis la woon njabootam te yàlla suñ koy waxtaane ba mu fees xolu jaan yi xol yi dañuy far dummóoyu lépp néegu yàlla te loolu arrangé wu ko ci ngir bokkaale gën a wesaaroo ko suuf ci cadre boobu nag incha allah dañ ñëwee tey ngir waxtaane ci euh, topp bi alhamdulillahi milu samawati wal ard wa milu ma baynahuma wa milu ma shaa هو أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم ربنا لك الحمد كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عنت الوجوه لنور وجهك وعجزت العقول عن إدراك كلهك ودلت الفطرة والأدلة عن امتناع مثلك وشبهك موصوفا ربنا بصفات الكمال منعوتا بنعوت الجلال منزها عن الشبيه والنقائص والمثال لا تدركه الافهام ولا تبلغه الاوهام ولا يشبه الانام حي لا يموت وقيوم لا ينام ولا ينبغي له ان ينام لو كشف الحجب عن وجهه بصره جل وعلا اللهم تتابع بره واتصل خيره وكمل عطاؤه وتمت نوافله وعمت فواضله وعز سلطانك وبر قسمك وجل ثناؤك وعز وعظم جاهك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي الجبال قوتك وفي الكون سطوتك وفي الخلق قدرتك وفي الشرائع حكمتك وفي الجنة رحمتك وفي النار سخطك وفي كل شيء آية دالة لك فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد وقفنا ببابك يا ذا الملك وزرنا رحابك والملك لك وجئناك نطوي قفار السهاد فما خاب يا رب من أملك إن سلاطين الأرض أغلقوا الأبواب ووضعوا الحجاب وردوا حاجات الطلاب وبابك ربي مفتوح ونوالك ربي ممنوح وخيرك ربي يغدو ويروح فيا كريما الكرماء بخلاء عند جودك ويا قويا الأقوياء مهازيل في قيودك ويا طاهرا النواصي في قبضات جنودك يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روح وريحان بقولك كوني يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني يا من أنجى من النار الخليل ومن الذبح إسماعيل وأيد اليتيم بجبريل ودمر أبرهة والفيل ومزق الغزاة بطير أبابيل ألسنتنا سبحت لك بعلاك ورؤوسنا ما سجدت لأحد سواك أنت ترانا ولا نراك ولا نعبد إلا إياك يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل ويسمع ويرى ما دونه في قاع بحر زاد ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل ويرى ذنوب عباده في ظلمة من فوق عرش بالمليك الأول أمن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول mbokk yi ñuy sant yàlla subhanahu wa ta'ala moom mi sant boppam njëkk kenn wala lenn di ko sant ba mu ne alhamdulillahi di ko sabbal moom yàlla moom mi sabbal boppam njëkk wala lenn di ko sabbal yusabbihu lillahi wala sabbaha ma fi samawati wal ard mu seede ne amul kenn ku yelloo ak jaamu ku dul borom bi subhaanahu wa taala moom yàlla moomee huwa alqaahiru fawqa ibaadihi wa huwa alxakimu alxabir moom yàlla moo not jaami moom yàlla mooy ki xereñ ki moom mooy ki dañ kumpa ki xam lépp huwa alawalu wal axiru wal zaahiru wal baatin wa huwa bi kulli cheyin alim moom yàlla moo jiitu te mooy mujj te moo feeñ te moo nëbbu wa huwa bi kulli shay'in alim moom yàlla moom moo xam lépp laa ilaha illa huwa aalimu alxaybi walshahadati huwa arrahman arrahim amul kenn ku ñuy jaamu ci dëgg jaamu nga di jur di ñu jural njëriñ ñàkk jaamu nga di ñu jural lor ku dul allah moom mooy aalimul xayb moo xam kumpa wa shahaada moo xam lu feeñ huwa arrahmanu rahim moom mooy borom yërmande gu yaaji moom yàlla subhanahu wa taala moom mooy almalik mooy alquddus di ku sell ki assalaam moom mooy jàmm almumin mooy ki jaami am ci moom dal xel almuhaymin mooy ki saytu lépp alazizu mooy ki tedd ki aljabbaarul mutakabbir subhaanallahi ammaa yushrikuun mbokki jullit yi mbokki doomi day yi mu ne innal mu'mina jullit bi de yaxtaaju bayna alxiini wal aaxar day aajawoo ci waxtu nekk ak ci jamono ji nekk iman ñu koy fàttali base yi ngëm yàlla yi wa thawaabiti al aqidati wa diin di ko fàttali eh, reeni pas-pas yi ak lii di diine mu ne wa an yugrasa fi qalbihi ndaxte loolu day jëmbat ci xolu jaam bi taadim allahi jalla wa ala màggal yàlla subhanahu wa taala mu ne li anna fiha xayaatu alqulub ndaxte ci loolee la xol yi di dundee wa sakinatu nufuus ci loolee la xel yi di amee ak dal xel li ko waral moo di inna al insana naka doomu aadama daifun dafa néew doole miskinun dafa ñàkk aajizun nit ki dafa lottu faqirun dafa ñàkk ba loolu moo tax yatalaabu bihi shaytaanu axyaana léeg-léeg seytaane di ko foowee di ko jax-jaxe ci ay xalaatam fa yahtazu yaqinuhu billahi jalla wa ala loolu daa di yëggal loolu daa di delloo ginnaaw ak kóoluteem ci yàlla subhanahu wa taala inna al insana xuliqa nekk haluux moom yàlla bu firi ñu lan mooy haluux mu ne mooy ki nga xamante ne iza massahu sharru jazua lu metti su ko dalee rek rek mu saali wa ida massahu alxayru manua su ko lu euh, su amee yàlla mosol ko tuuti xewal manua mu yemale ko ci boppam xañ ñi nga xamante ne ñoom ñoo mbokk yi doomu aadama nii yaxtaaju fi kulli waqtin wa xiin day aajowoo ci waxtu wu nekk maa yuqawi imaanahu liy dëgëral ngëm ngëm yàllam wa yuazizuhu liy dooleel ngëm yàllam akthara min xaajatihi ila altaami walsharab lu ëpp li nit ki di aajowoo lekk ak naan ci 24 heures bi lu ko raw la nit ki di aajowoo lay dëgëral gëm yàlla moom yàlla yàlla dëgëral suñu yàlla ndaxte gëm yàlla googee kat hada al huwa ajallu ma yamlikuhu al mumin mooy li gën a rëy li jullit bi yor moom mooy trésor jullit bi ngëm yàlla subhanahu wa taala mooy li gën a rëy li jullit bi am li ko waral moo di li anna bihi tataxaqaqu saadata daaray ci lay amee teraangay tey waaye tamit ci lay rawee ëllëg yàlla na ñu yàlla defal teraangay tey ak rawu ëllëg waaye lii di ngëm yàlla li ci gën a feddali ko moo di maarifatul xaaliqi subhanahu wa taala mooy nit ki xam kan mooy boromam subhanahu wa taala mbokk yi sunu seetloo ni ñuy dundee seetlu ni nit ñi nekkee ci kaw suufu si yàlla si déglu seeni waxtaan di fekkee seeni jotaay di nga dem ba yëg ne annahum kathiran maa nusni wa namdax wa nuadimu almaxluqin aka bëri lool lu ñuy tagg ay maanaa ay bindaafon di màggal ay bindaafon di tudd ay bindaafon wa nataxaddasu an sufliyaat di waxtaane yi suufe yi fàtte yu kawe yi yi suufe yi mooy lépp luy dox diggante nit keeg diineem yu kawe yi mooy lépp luy tax nit ki gën a jàpp ci diineem mu ne su ko defee wa nansa ñu fàtte taadima alxaaliqi jalla wa ala màggal yàlla subhanahu wa taala wa huwa ahlu lsanai walmajd wa ahlun li an yubad te moom yàlla moo ak kañ moo yelloo ak bàkk waaye tamit moom moo yelloo ak jaamu wa laqad aqaama allahu ad-dalaa'il al-baahirat yàlla ci baaxam ak ci xereñam ak bëggal ñu jàmbi tey ak raw ëllëg moom yàlla subhanahu wa taala indil nañu ay tegtal yu rëy wal ayaati al waadihaat indil ñu ay laaya yu leer naññ yoo xamante ne day tegtale ala wahdaniyatihi day tegtale ne yàlla subhanahu wa taala kenn la wa tafarrudihi day tegtale ne moom rek lañ war a jaam wa taadimihi day tegtale ne moom yàlla moom mooy ku màgg ki mu ne fal nandur nanu xool هذا الكون البديع الذي صنعه وإلى عظيم خلقه nañu xool adduna bi ni ko yàlla rabbi nañu xool asamaan si ni mu ree nañu xool mbindaafon yi ni leen yàlla bindee moo tax sunu borom yàlla subhanahu wa taala di ñu tuddal tegtal yooyee inna fi xalqi samaa mu bindee asamaan yi ak ni mu bindee suuf yi wa ixtilaafi llayli wa nahaar ak ni guddi gi ak bëccëg gi ni ñuy wuutantee wal fulki allati tajri fi lbahr nekk na ci bato yi nekk ci géej gi di daw ci liy indil ak njëriñ mu wa ma anzala allahu min alsamaai min maa ak li yàlla wàccee ci asamaan si si dox fa ahya bihi al arda ba'da mawtiha yàlla dundal ci suuf si ginnaaw bi mu deewee wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifi riyah moom yàlla mu wesaare kaw suuf si ci ay bindaa fon waaye tamit wa tasrifi riyah muy soppox di ko ci galaw gi والسحاب المسخر بين السماء والأرض ak lii di diir euh, bi nekk ci diggante asamaan seeg suuf si yàlla mu ne yii ma fi tudd de la aayaat ay tegtal la li qawmi yaqiluuna ñeel ñi xelu ni yàlla nu yàlla boole ci ñu xelu ni waaye yemul ci wan ñu ne loolu kéemtaan la waaye moom yàlla def ñoo digal ngir ñuy xool yooyu ndaxte ci yooyee la ñuy tegtaloo mën a yëg màggaayu yàlla mën a yëg kàttanu yàlla mën a yëg man-manu borom bi subhanahu wa taala yàlla di ñu digal qul xoolu bët ba tey xel tamit day xool te moom mooy xalaat mu ne xool leen li ma def ci asamaan seeg suuf si wa ma tugni l ayatu wan nuduru an qawmin la yuminuun waaye yàlla xamal ñu ne kat am na ñoo xamante ne xool gi ñuy xool asamaan seeg suuf si du leen jëriñ dara yamuruuna alayha ana ñaata kéemtaan ana ñaata firnde ñoo nekk ci asamaan seeg suuf si yamurruuna alayha ñu koy romb suba ak bëccëg guddi ak bëccëg wa hum anha mu'ridun te ñu ngi dummooyu mbir ma xalaatuñ ci settantaluñ ko waaye yàlla xamal ñu moom moo ko sàkk ñeneen ñañuy yaakaar ñeneen ñañuy wóolu ñeneen ñeneen ñi jaami di wéer seeni mbir yàlla mu ne ñooñu sàkku ñu de suuf si montagne yi asamaan si bindaafon yi fi nekki yàlla mu ne haada lii xalqullah lii de maanaa eh, yàllaa ko bind mu ne fa aruuni wan leen ma yàlla mooy wax de mu ne fa aruuni wan leen ma maada xalaqa alladina min duuni ñeneen ñi lan lañ fi sàkk ñeneen ñañuy yaakaar ñadul yàlla lan lañ fi sàkk ñeneen ñañuy wakkirlu ñadul yàlla lan lañ lan lañ fi sàkk ñeneen ñu ñuy ñaan ñudul yàlla lan lañ fi sàkk tontu moo di moo di sàkk ñu fi daal moo tax mu teg ci mu ne bali zaalimuuna bokkaalekat yi kay fii dalaalin mubiin ñu ngi ci réer bu biir borom bi subhaanahu wa taala kon moom yàlla wan nañu ne mu ne ma mu ne ñu haada xalqullah lii de mooy mbindeefu yàlla yi lii mooy lii yàlla bind wan leen ma lan ñeneen ñi bind yàlla xamal ñu ne su ngeen gisee li ni mel la muy tegtale moo di afaman yaxluqu kaman laa yaxluq ndax ki man bind di bind mën na tolloo ka bindul afala tadakkaruun ndax du ngeen fàttali bu ngeen jaami mbokk yi xalaqa allahu alxalqa lépp loo teg sa bët yàlla moo ko bind wa takallama ala annahu xalaqa alxalq yàlla bàkku ci ne moom yàlla moo sàkk lan moo sàkk mbindaafar yooyee moo tax dippi bi àdduna di àdduna ba tey ak li fi masa jaar yépp ci li nga xamante ne moom mooy ay kàccoor ci ñu doon woote woone ay yàlla lañu ci ñi daan fëgg seen dënn ah di man-man lu li yàlla man amul kenn ci ñoom ku mas a taxaw ne moom moo bind asamaan si wala moom moo bind suuf si bal bal kay dafa ñëw fekk fi asamaan si fekk fi li nga xamante ni moom mooy lan moom mooy suuf si inna rabbakum mooy ki nga xamante ne moo bind asamaan seeg suuf si ci juróom benn fan summa stawa ala al arsh ginnaaw loolu mu yemoo ca arsham yuusi layla nahaara yatlubuhu xafiisa moom yàlla subhanahu wa taala mooy jël guddi gi muuree ko bëccëg bi jël bëccëg bi muuree ko guddi gi wa shamsa wal qamara musaxaratin bi amri yàlla mu ne weer wi ak jant bi ak biddéew yi yàlla moo leen tàggat ci ndigalam alaa lahul xalq wal amr kon nag ak mbind ñeel na ko moom yàlla waaye tamit ak ndigal ñeel na ko moom yàlla tabaraka allahu rabbul alamin borom bi yàlla barkeel na moom bi eh, di eh, borom jaami sunu borom yàlla subhanahu wa taala dañu xamal ci alquran ne ñaar ñuy def di dindi ñaar ñu moomandoo adduna bi ñaar ñu ñuy bokk di jaamandoo te ñoom ñaar ñépp ñu war leen a mën a jaamu yàlla mu ne loolu mënta nekk amit taxadu fi ñaari yàlla amoon li am am moo di bi anna allaha huwa alxaq yàlla de jaamu gi koy jaamu mooy jaamu dëgg dëgg wa anna ma yad'uuna min dunihi huwa albaatil mboolem lu ñuy samp di ko jaamu yàlla mu ne yooyu ay foo la yooyu ay caaxaan la waaye su fekkoon ne ay maanaa ku tol na yàlla ku mane aduna bi ak asamaan si dafa amoon lu ñaari yàlla yu fi nekk yàlla mu ne ak asamaan si day yàqu ndaxte dina xëy kii ne na la na jant bi kii ne ko déedéet nañu bàyyi ba problème am ñu lan ñu xeex moo tax mu ne walaw kaana fiihima aaliha su fekkoon ne ay yàlla asamaan si yàqu mu ne fa subhaanallah sell ñel na yàlla rabbil arsh moom mi di borom arsh bi amma yasifuun ci liñ koy melal ci liñ koy wutal ay ndet sunu borom yàlla subhaanahu wa taala wax ñun ci beneen aaya wattaxadu min dunihi nekk yàlla yoo xamante ne ay yàlla yu fóolanu laa yaxluquuna shay'a yàlla mu ne ñooñu sàkkuñu dara wa hum yuxlaquun bal sax ñoom seen bopp dañ leen a sàkk mu ne wala yamlikuuna li anfusihim naam ña leen tabb ña leen samp jublu ci ñoom am na lu ñu bëgg ci ñoom la ñu bëgg ci ñoom mooy ñu leen di xëccal njëriñ di leen fanqal lox yàlla mu ne nettaliwuñu fax sax ci ndax mën nañu xëccal gaa yi njëriñ ak fonkal leen lor mu ne ñoom sax ci seeni jëmmi bopp mënuñoo xëccal seen bopp njëriñ mënuñoo fonkal seen bopp lor kon su fekkee ne waa ji ci boppam mënalu ko boppam kon keneen nag waxi noppi mu ne wala yamlikuuna li anfusihim darran wala nafaa wala yamlikuuna mawtan wala xayaatan wala nusuura yorewuñu njëriñ yorewuñu lor yorewuñu dund yorewuñu dee yorewuñu dekkil jaami kon ki yore njëriñ ak lor di dundalaate ak di faataate ak di dekkil jaami ëllëg kooku moom mooy yelloo jaamu moom mooy jalla jalaaluhu wa azza kamaalu moom yàlla moo wax ñu aaya ba tey ngi fa borom bi subhanahu wa taala laa yaalamuha illa hu kenn xamu ko ku dul yàlla mu ne wa yaalamu ma fi lbarri walbahr moom yàlla moo xam li nekk ci géej gi moo xam li nekk ci jéeri ji wa ma tasqutu min waraqa amul benn xob buy rot ci benn ci garab yi lu dul ne illa yaalamuha lu dul ne yàlla xam na xob boobee xam na nekkam gi mu nekk ci garab googu xam na waxtu wa mu war a rot xam na naka lay rotee xam na ci jan jamono lay rotee kon kooku moom mooy euh, allaamul xuyub mu ne wala xabbatin fi zulumaati l ard amul benn pepp muy pepp muy dugub bu nekk ci biir suuf si lu dul ne yàlla gis na pepp boobu gis na mu tëroo ba xam dafa taxaw wala dafa jaaxaan ba xam dafa xar wala nan la bindoo yàlla mu ne loolu lépp xam wala ratbin wala yaabisin amul lu tooy amul lu wow illa fi kitaabin mubin lu dul na mu ngi nekk ci téere boo xamante ne mu biir la kon mbokk yi xalaqa allahu alxalqa wa aqaama alxalqa burhaana yàlla moo sàkk mbindaa fon yi ba noppi bàyyi leen fii ngir jaam yi di tegtaloo ci ni yàlla bindee bindaafan yooyu ngir yégee ci màggaayu yàlla subhaanahu wa taala wala sunu borom yàlla di wax ci alquran alkarim a antum ashaddu xalqan am issamaau banaaha yàlla mu ne ndax yéen yéen a gën a dëgër bindi ni yéen nit ñi wala ni ma bindee asamaan si rafa samka borom yàlla moo yëkkati asamaan si ba pare dëgëral wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha moom yàlla mu génneel ñu guddi génneel ñu li nga xamante ne moom mooy ba moom mooy bëccëg waaye lam ci beneen aaya mu ne maa lakum laa tarjuuna lillahi waqara lu tax waaye du ngeen yaakaar yàlla lu tax du ngeen wommatul yàlla lu tax du ngeen am kóolute ci yàlla lu tax du ngeen yëg màggaayu yàlla wa qad xalaqakum atwaara te moom yàlla moo leen sàkk ci ay état yu wuti mu ne alam taraw kayfa xalaqa allah xanaa gisu leen ni yàlla sàkkee sabaa samawaatin tibaaqaa juróom-ñaari asamaan ak ni mu tegaloo wa jaala alqamara fihinna nuura mu def weer wi nekk lu am leer wa jaala shamsa siraja mu def jant bi nekk loo xamante ne luy tàkk la mu ne wallahu ambatakum min al ardi nabata yàlla moo leen génnee ci suuf si summa yuiidukum fiha bis dina jot mu delloo leen ci wa yuxrijukum ixraaja bis dina jot mu génnee leen waat ci li nga xamante ne moom mooy suuf si mbokk yi inna hada diin sunu diine jii di diine lislaam yaqumu ala tawxid alxaalis ci pas-pas wu leer naññ wu mucc ayib wu set wicc noonu la lislaam di doxe wa ala alaqidati alsaxixati alnaqiya bu ngi doxee pas-pas boo xamante ne bu wér la bu set wicc la bokk yi pas-pas bu wér boobee tarbituka bi rabbik da lay takkeeg sa borom yàlla subhanahu wa taala wa tajaaluka tujillullah da lay poussé ci ngay màggal yàlla wa tuadimuhu wa tuhibbu da lay poussé nga sopp sa borom boobee wa tusni alayhi da lay poussé nga koy bakk li ëpp li ngay xalaat ak di bakk ak di kañ ñi nga xamante ne yàlla moo leen sàkk mu ne wallahi laqad aqaama allahu alhujjata ala alibad kon li am ba am yàlla subhanahu wa taala euh, teg na lay ci kaw lan ci kaw jàmbi euh, ndeysaan aljuma bele romb dama doon jiite ji fële mu jàmma ca yëmbal ca tataa ma duggoon jékki-jékki rek am benn waay bu dugg daal xam naa wut nay wëñam yu bëri lool yu weex ak yu ñuul ak yu xonk maanaam daal yore daal lu tolloog loxo nii Eh, xaw ma ni ñu koy waxatee wëñee ni ñu koy tuddetee waay ah, waaw fas waaw ay fas a ngi day faj nangam ah xale buy tuur ndox karang karang day xëcc wëcc wërsëg day dox sa digganteeg nitu guddi wax wax yu bëree bëri lool benn nag ñaar fukk lay wecce rek oto bi ndeysaan nit ñi quoi jox ma ñaar jox ma ñett jox ma juróom nga yëg nit ñi ni seen problème bëree ak ni ñu fàtte seen diggante ak seen borom yàlla subhanahu wa taala bi mu demee ba jënd bi bëri mooy nag kenn amul droit bokk ka kenn soo ko takkee takkal ko keneen mooy lan bay rek a deñ na waaw waaw di wax nit ñi di jënd nit ñi di jënd fekk dèjà maa doon def defi xutba maa ngi ko waroon def ci euh, thème bi moom mooy màggaayu yàlla subhanahu wa kon nit noonu la su xasee ba dévier ci yoon wi mu waroon jëm ci boromam rek lu lu jaar lu jaar da koy du jaar da koy këf kon nga gis tey nit ñi di ñu euh, maanaam di ñu jubluwee ca nga xamante ne moom mooy caaxaan yooyu moo tax bu ne pas-pasu wér day takke nit ki ci boromam yàlla subhanahu wa taala su ko defee nit ke dootul màggala ci kenn ku dul yàlla di sopp yàlla di ko bakk di ko kañ jalla jalaaluhu wa azza kamaalu da gis kat nit ñi léeg-léeg Euh, dugg ci kilifa wala seeti kilifa euh, muy buurub adduna wala lu mën a doon loos ya ne teg kàddu ya ne war ma baag respect ga bëri lool waaye ànd ak loolu daanaka sunu taxawee seen kanamu borom yàlla subhanahu wa taala respect googu ak yëg-yëg woowu daanaka doogu lan doogu gis mu ne inna naas inna baad annaas naka lenn ci nit ñi laa yastatiiu an yuaamila allah mënuñoo jëf mënuñoo jëflanteeg yàlla kama yuaamilul maxluq waxuma la sax lanu waroon jëflanteeg yàlla ak fañ ko war a teg waaye gëdd ga ñuy jox nit mënatuñ koo jox lan mënatuñ koo jox borom bi subhanahu wa taala mu ne wa haada min dufi l iman loolu day tegtale lomp ñu ko gëm yàlla wala sunu borom yàlla subhanahu wa taala di ñu fàttali ci alquranil karim eh, di ñu tuddal yi mu def yi nga xamante ne eh, yooyu yëpp ay tegtal la yoo xamante ne mënoon nañ cee tegtaloo gën a yëgaat màggaayu yàlla ak fu ñu féete amman xalaq ci ki nga xamante ne moo la sàkkal asamaan si ak suuf si wàcceel la ndox ci asamaan si fa ambatnaa bihi xadaaiqa daata bahja saxalal la ci ay tool yu naan yàlla mu ne maa kaana lakum an tumbitu sajaraha yéen waa adduna yëpp su ngeen boole woon seen pexe ak seen man-man ak seen njàmbaar ngir defar benn ngooñ benn ngooñ rek bàyyi fee suufu si yàlla si bàyyi fee ndoxu ya euh, maanaam ndoxu yàlla indi seeni pexe rek ngir benn ñax sax yàlla subhanahu wa taala mu ne euh, ma kaana lakum an tumbitu shajaraha a ilahum ma allah bal hum qawmun yaadilun ndax am na ñeneen ñu man lii ba ngeen leen di tollal ak yàlla yàlla mu ne li am am daal mooy jaam yi dañ fee bàyyi la ñu waroon def tegu ci yeneen yoon mu ne am man jaala ki leen defal suuf si mu nekk lu lu lu ne tekk dal nga tabax ci sa di ci daw di ci faj say aajo def ci lépp suuf si ne tekk tekkaar mu ne ki leen defal suuf si noonee wa jaala xilaalaha anhaara xottil leen ci ay dex wa jaala laha rawaasi def ci ay doj yoo xamante ne mooy dëgëral suuf si ba suuf si du rëng-rëng ci yéen wa jaala bayna albahrayni xaajisa doxal leen diggante ñaari géej yi def ci kiiraay mu ne a ilahum ma allah ndax am na keneen ku man lii bañ koy tollale ak yàlla wala di ko jiiñ jëfu yàlla subhanahu wa taala li am ba am mooy li ëpp ci nit ñi dañoo xamut mu ne am man yujibu lmuttar ida daa ana kan mooy fajal ñi dem ba lottu bëgg ku leen aw ci seenu lottu mu ne am kan moo leen di aw ku dul yàlla wa yaj'alukum wa yaj'alukum xulafaa al ard moom yàlla mu def leen ngeen nekk kuut laay kaw suufam si mu ne a ilahum ma allah ndax am na keneen ku man lii wala ku jege nii bañ koy tollaleeg yàlla mu ne qalilan ma tadakkarun ak néew li nit ñi di fàttali mu ne am man yahdikum fi dulumaati albarri wal bahr waaye waaye ki nga xamante ne moo leen gindi ci lëndëmaa yu jéeri yi ak géej gi wa yursilu riyaaha bushran bayna yaday rahmati indil leen ngelaw mu leen di wommatal niir yi di leen indil taw a ilaahun ma allah a ndax am na ku man lii bañ koy tollale yàlla yàlla mu ne taala allahu amma yushrikun borom bi kawale na boppam ak fi nga xamante ne moom la moom la ko gaa yi di bokkaale mbokk yi yàlla subhanahu wa taala ginnaaw bim ñu defaralee adduna bi defaralee adduna bi defar asamaanam si samp ci ay montagne am defal ñu loolee nekk ay tegtal yu ñuy tegtal ngir ñu man ci yëgee màggaayu yàlla waaye mbokk yi ginnaaw loolu yëgal na mbir yooyu yàlla sàkk muy asamaan si di doj yi di suuf seen mboolem li fi nekk yëgal na ñoom ñépp xaadiatun dañoo wommatu dalilatun suufeel seen bopp munsarimatun di wéy li taadimi rabbiha di màggal seen borom yàlla subhanahu wa taala mi nga xamante ne aw jadaha moo leen amal waaye tamit saajidatun lillahi azza wa jal di ko sujjootal moom yàlla musabbihatun munazzihatun lillahi subhanahu di ko bàkk di ko kañ moom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu sunu borom yàlla dañu ko nettali ci alquran alkarim alam tara anna allaha sunu borom yàlla subhanahu wa taala dina ko sujjootal mboolem li nekk ci asamaan seeg suuf si والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب weer wi day sujjootal yàlla jant bi day sujjootal yàlla biddéew yi dañuy sujjootal yàlla montagne yi dañuy sujjootal yàlla garab yi dañuy sujjootal yàlla bàyyima yi dañuy sujjootal yàlla wa kathiirun min annaas mu ne ak lu bëri ci nit ñi ak jinne gis nga foofu newul lan newul ñëpp wa kathiirun xaqa alayhi al azaab mu ne ñi ca des la waral bokk ñu ci mooy kàddu bugal dafa yell seen kaw yàlla yàlla musal ci bugal moo tax mu teg ci euh, kàddu gu raglu wa man toroxal mooy ku amul pas-pas que yàlla toroxal mooy ki amul pas-pas wu wér yàlla na yàlla wërsëgal pas-pas wu wér mu ne ku mel noonu fama lahu min mukrim amatul ku ko mën a teral kaw suuf inna allaha naka yàlla yafalu ma yasha alam tara anna allaha moo ne yàlla yii ñu fi tudd yëpp da koy sujjootal fii mu ne xamal ne yemu yemuñu ci sujjoot sujjoot ga bal dañ koy sabbal xanaa xamoo ne yàlla yusabbihu lahu da koy sabbal man fi samaawaati wal ard mboolem li nekk ci asamaan ak suuf si wa tayru njanaaw yi soofaati dañuy tàllal seeni laaf ci jant ci ci jaww ji kullum qad alima salaatahu wa tasbiha kenn ku nekk ñoom xam na naka lay jullilee yàlla xam na naka lay sàbbaale yàlla mu ne wallahu alimun bima yafaluun yàlla daal xam na li jaam yi di def beneen fi ma ne yusabbihu lahu samawati sab'u wal ard soo seetloo ñaari aay yu jiitu yi dafa ne man fi samawati wal ard mboolem li nekk ci asamaan si ak suuf si kon tuddagul asamaan si tuddagul suuf si fii nag mu ne yusabbixu lahu samaawaatu sab'u wal ardu wa man fihin asamaani juróom-ñaar dañuy sàbbal yàlla suufi juróom-ñaar dañuy sàbbal yàlla wa man fihinna ak li nekk ci seen biir mu ne wa in min shay'in amul lenn looy gis illaa yusabbixu bihamdihi lu dul ne mu ngi sàbbaal yàlla subhaanahu wa taala waaye li ci nekk moo di walakin laa tafqahuuna tasbihahum waaye yéen jaar yi xamuleen leen yooyee naka la ñuy sàbbaale yàlla mbokk yi innal abda de lu yëgee ci li weesu li kon jaam bi dafa war di màggal yàlla dafa war di bàkk yàlla di ko kañ dafa war di jaamu yàlla wa taala adunam noppi yëg ne moom defagul dara ba noppi yëg ne moom defagul dara mooy euh, am na malaaka yoo xam ne depuis bi leen yàlla sàkkee depuis bi leen yàlla lan sàkkee ñu ngi ñii ñu ngi sujjóot ñee ñu ngi ruko di bàkk yàlla di ko kañ adduna bi dox ñuy bàkk yàlla di ko kañ adduna bi di dox ñuy yàlla di ko kañ ba adduna bi fireeku ñuy bàkk yàlla di ko kañ ba taxaw ci kanamu yàlla subhanahu wa taala yàlla jox leen digal ñu siggi waaye ba ñu siggee lan la ñu njëkk wax subhaanaka maa abadnaaka xaqa ibadati sell ñeel na la yow yàlla ñun de e, jaamuwuñ la niñ la waroon jaamu dëgg-dëgg kon ñoom bi ñu xalaatee màggaayu yàlla daanaka maanaam gisatuñu seen bopp gisatuñu seenu man-man gisatuñu seenu taxawaay weddi nañu mbooleem la ñu taxawee woon ndax rëyaayu ak màggaayu sunu borom yàlla wa taala kon nanu yëg ne jaamu yàlla googu ñuy jaamu yàlla màggal gi koy màggal kañ gi koy kañ bàkk gi koy bàkk wéet gi ñuy wéet ak moom ñaan gi koy ñaar wéet gi ñuy wéet di jooy sunuy bakkaar nanu yëg ne loolu ñun ñoo ko aajowoo loolu ñun lay dolli ñun lay defar sunu mbir waaye du yàlla lay dolli di déedéet inna allaha huwa alganiyu alhamid yàlla mooy algani mooy ki woomal ki alhamid moom mooy ki sant boppam njëkk lenn wala kenn di ko lam wala kenn di ko sant moo tax moo ñi alquranil karim ya ayuha hamid moom yàlla mooy ki woomal ki mu ne in yasha yudhibukum su ko sooboon yàlla yudhibukum bu jëlee leen fi wa yati bi xalqin jadid indi fi yeneen bindaafoon wa ma dalika ala allahi bi aziz te loolu jafewul yàlla lu ko yomb la moom borom bi subhanahu wa taala boo tax mu ne ee yéen samay jaam yéen ñëpp réer kullukum daal ba mu des kama maanaam ka yàlla jubal mu ne sàkku leen ci man njub ma jubal leen kon yow mi yàlla wërsëgal njub yëgal ne kay joxe njub kenn la mooy yàlla day yéen samay jaam yéen ñëpp xiif leen ci man dunduma man yàlla e am loo dundee yëgal ne ka la yàlla woddu mu ne sàkku leen ci ma woddu leen kon yow mi am loo suturaaloo yëgal ne ka la mooy yàlla subhanahu wa taala yaa ibaadi ay yéen samay jaam da di juum guddi ak bëccëg te man yàlla maay kiy jéggale bàkkaar yépp fastaghfiruni aghfir lakum waay waay jéggalu leen ma jéggal leen yaa ibaadi ay yéen samay jaam innakum lan tablugu darri fa tadurruuni manu leen yegg fu ngeen may loree ba may lor man yàlla wa lan tablugu naf'i fa tanfa'uunani manu leen yegg fu ngeen may jëriñee man yàlla ba may jëriñ yaa ibaadi yéeg leen ni yéen samay jaam ñu jiitu ci yéen ak ñu mujj ci yéen nit ñi ak jinne yi ñoom ñëpp suñu dajaloo woon ci benn pénc di ko ñaan moom yàlla mu leen di jox mu leen di jox mu koy ñu koy ñaan mu leen di jox ba ñépp ne doy na yàlla mu ne loolee du wàññi ci li ma yor man yàlla lu tolloog li puso di wàññi ci tooy tooy suñ ko jëmee ci géej ba génne mu ne ee eh, samay jaam eh, seeni jëf la su ngeen ragaloon yàlla ba mel ne ka gën a ragal yàlla ñu misaalee ko yonent bi sallallahu alayhi moom la sax mu ne loolee du wàññi du yokk ci sama nguur man yàlla dara adduna bi ñëpp ànd mel ne sallallahu alayhi wa di def nam daan defee am gëm-gëm gu toll ne ga nekkoon ci moom am kóolute ci yàlla gu toll ne gi nekkoon ci moom am yaakaar ci yàlla gu toll ne gi nekkoon ci moom di xiyaam sunuy guddi lépp di woor sunuy bëccëg lépp di taxawe li ñu a taxawe lépp cent pour di sori li ñu war a sori yépp cent yàlla mu ne yàlla dara kon ndeke kay def boppam lay yokk kay def boppam lay yokk naam nag yàlla dina ci kontaan dina la ci yokk dina la ci gërëmee dina la boole ci jaamam yi nga xamante ne sopp na leen waaye su àdduna bi yépp àndoon tamit bañal ko moom yàlla ba mel na iblis dundee noonu yàlla mu ne loolu du wàññi ci sama nguur man yàlla daal ñooñu di ko def ñoom lay wàññi mu ne yéen samay jaam su ngeen taxawoon ci benn penc ñëpp laaj ma ma jox leen jox sax ku nekk lu toll ne ay adunay aduna ak la ca nekk ci nguur ba doomu aadama yi tàmbalee ci aadama ba ki ci mujjee juddu nit ñeeg jinne yi ñoom ñëpp ñëpp ne doy na yow yàlla soxla tunu dara doy na doy na doy na yàlla mu ne loolu du wàññi sama nguur man yàlla dara lu mel ne Euh, du wàññi ca la ma yore ci wërsëg lu tolloog li puso di wàññi ci suñ ko jëmee ci géej ba génne mu ne kon ee yéen samay jaam ku fi ñëw ëllëg fekk fi lu baax na sant yàlla waaye ku fi ñëw fekk fi so sofaan bu mu yedd kenn ku dul lan ku bokk mbokk yi kon dañ ciy déggee ne an al izzata fi kanafi al aziz ak tedd nga daal ma ne su koo amee fenn fu fa yàlla wa man abada ghayra allahi dul képp ku jaam wala yaakaar leneen lu dul yàlla kooku torox na mbokk wa man abada ghayra allahi dul moo tax yàlla mu ne man kaana yuridu al izzata fa lillahi al izzatu jamia yàlla mu ne man kaana yuridu al izza kan moo soxla tedd nga mbokk yi ndax soxla nañu tedd nga waaw soxla na nit ñëpp saa yu ñu xëyee ba gont di fanaan tedd nga la ñuy wër mu ne ñooñu nañu yëg ne fa lillahi al izzatu jamia ak tedd nga lépp mu ngi fa yàlla subhanahu wa taala waaye yëgal na yow jullit bi jege gi ngay jege sa borom di góorgóorlu ci ay ndigalam di bàyyi ay tereem loolu da lay muuraale mbubbug tedd nga ga boo tax mu ne walillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil muminin ak tedd nga ñeel na yàlla ñeel way gëm yi ah ñeel yonent bi yàlla bi mu ne walakinna al munafiqina laa yaalamuun waaye nag naafeq yi mënuñoo comprendre bana la ñu gëmoon lii la ñu dundoon yëg ne tedd nga mënuñu ci keppaaru lislaam moo tax benn bis jàkkaarloo gaaya ne leen kunna adilla ñun dañoo toroxoon démb fa azzana allahu bi hada din yàlla teralee ñu diine ji fa mata talabna al izzata min gayrihi adallana allah saa yuñ fi bàyyee diine jii di sàkku tedd nga feneen yàlla torox ñu yàlla nu yàlla musal ci torox taaji ñu tëjee ko eh, ñaari qissa yu gàtt eh, buur bii di almalik di alwalid bun abdilmalik bun marwan bokkoon ci buuru lislaam yi fi jaaroon nga xamante ni ak nguuram ak gouvernement daanaka day làmboo réewi lislaam yëpp jamono jooju jullit ñëpp benn loolu la am benn njiit la ñuy am kii di alwalid ibn abdul malik ibn marwan yàlla dogal mu toog ab diir bëgg umra ji mu dem umra ji bu mu dem umra ji ànd na ak ay soldaar yu lan yu mat sëkk rawatina ak jamono jooju daanaka mën nga leen xayma ñi mu àndal ak ñi ko dar mën nga leen xayma ci lu tolloog ñetti téeméer waaye bi mu yegsee ci kaaba gi commencé bëgg wër jékki-jékki seen benn waay fële lépp ci biir jàkk ji waaye daanaka li wër waa ji mën nga ne ay junni doomi aadama ñoo wër waa ji moom moo jiite adduna bi adduna yi jullit ñi nekk seen njiit moom mu ngi ànd ñetti téeméer. seen fële benn waa joo xamante ne la ko wër daanaka ëpp na ñetti junni jëm ci kaw mu laaj ni mu àndaloon nee leen waaw ayujadu raisun xayri ndax dafa am beneen waa ju ñu tànn mu nekk njiital julli ñi wala déet lu xew parce njiit moom lu nekk mën na koo la toléré ba mu des la nara la ko nara jëlee place waaye bi ñu lijjantee ñu ñëw ci moom nee ko kat ah kee Saalim la bun abdillahi bun umar ibn alxatab mu nekkoon borom xam-xam bu mag a mag nekkoon jaamukatub yàlla waaye kii di walid biñ ko nee saalim dégg na saalim dégg na borom xam-xamam dégg na ni ko nit ñi bëggee moom ci boppam am ñu mu àndal xuus xuus ba yegg la ba yegg ci saalim yëg ne kon nekkite kee liñ ko wëree mooy tedd nga diini mu ñëw ba ci saalim nee ko kat dama am yéene dimbali borom xam-xam yow Salim dama bëgg rek nga wax ma ana ban aajo nga bëgg ma dimbali la ci ma dimbali la ci yàlla tax mbokk yi loolu fan la amee mu ngi amee ci wetu kaaba gi lii mu ñaan kilifa gi ne da koo bëgg fajal loolu nekkul lu jaadu naam lu jaadu kilifa ga amul droit ne ko ah su ma sañoon nga dimbalee ma nangam ak nangam tabaxal ma nangam ak nangam naam am na droit waaye mbokk yi ñii seen kàddu seen njàngale lépp day delloo nit ci borom. lam ko njëkkoon ginnaaw bi mu xamee ne kii di wax ak moom moo jiite jullit ñi nekk ci adduna bi yépp da ko ne inni la astaxyi an akuna fi baytillah bi jiwaari kaabatillah asalu gayra allah mu ne ko ah, man de rus naa nekk ci biir néegu yàlla bi janoog kaa kaabay borom bi di tiis sama soxla keneen ku dul yàlla waaw maa ngi jéggalu nag nekk ci baytullahi alxaram kaaba gi jàkkaarloog man ma xam li ma fi indi may tiis sama soxla keneen ku yàlla waaye mbokk yi kàddu googu am na lu mu jëmbat ci xolu xolu kilifa ga kilifa ga bàyyiwul de mu ne amaana dafa toll di nañu bàyyi ba mu pare mbokk yi bi ñu paree ñu daje ci biti buur ba laajaat ko nee la ma yëkkati woon moo ma indiwaat desaan kilifa ga laaj ko ci kanamu mbooloo mi nee ko amin amri dunya aw min amri al-axira li nga ma bëgg a ci mbiru di eh, mbiru aduna la wala mbiru al-axira bi nee ko maa di walil min amri dunya yow kay yaa gën a xam wàllu al-axira moom nekkul man eh, ad-dunya ma sa'altuha alladi yamlikuha fa kayfa as'aluha man la yamlikuha mu ne ko aduna rus naa sax di yëkkati sama ak li nar a xaar jaami ëllëg ak li jaam bi soxla ci mucc ëllëg loolu doy na ma yitte ba daanaka du ma yëkkati sama loxo sax di ñaan borom bi lu aju ci lan ci wàllu aduna mu ne ko su fekkee ne ki moom àdduna bi di yàlla moom sax laa tàllalu sama loxo di ko ñaan wàllu aduna bi kon nan laay tàllee sama loxo di ko ñaan koo xamante ne moomu ko naam moomu ko aduna bi ki ko moom moom mooy jalla jalaaluhu wa azza kamaal kon li nga ci yëgee ne moo Eh, buur yàllaa ko moom eh, yàlla subhanahu wa taala yuizzu man yasha wa ma man yasha ni mag yi démb yi daan yaree tamit li taxoon seenug yar am barke waaw ah, yal na yàlla gën a dëgëral suñ mbokk yi nga xamante ni ñoom ñooy génn ci wàllu eh, xuruj fi sabilillah di daawa fi sabilillah dañuy nekk nit ñetti nit wallahi yàlla def ci moom jeexit woo xamante ne yow sa jëmmi bopp mënoon nga nekk moom at doo mën a am ci moom jeexit boobu loolu lan moo ko waral mooy dafa am fu ñu tàmbale jaam bi mooy fan mooy tarkiis ci xamal ko màggaayu yàlla loolu su xasee ba fees ci xolu jaam bi xol ba day mujj rejeté lépp loo xamante ne dafa juyoog yàlla loolu moom aslan day am moo tax ñu ne képp ko koo gis mu mooy yàlla rek dafa xamagul yàlla dëgg-dëgg kon ñu nit dafa jaadu ci ñun euh, maanaa lii di réew mi lii di nit ci réew mi ñu fexe ba maanaam nu mu tuddati suuxat lii di màggaayu yàlla ci xolu jaam yi jaam la ñu dégg bis bu nekk ñu leen koy waxtaane ci màggaayu yeneeni mbir ak màggaayu ñeneen moo tax leneen lanu gëm moo tax leneen moo màgg ci seen xol waaw kon mbokk yi nañuy waxtaan ak nit ñi ci lii di màggaay yàlla subhanahu wa taala doy na ci misaal rek ñu julli muy kii di Malik eh, ibnu Dinar te ñu mosoon indi fii qissa benn bis nekk na ci jàkkam nekk na ci këram xaaju guddi buy julli kër ga lëndëm lool amul làmp fi mu nekkee di julli rek ci biir julli bi jékki-jékki euh, benn saay-saay tëb miir bi kii tëb miir di dugg kër xam ngeen liy liggéey bugguma yegg ci lan ci turu euh, turu loolu yàlla yàlla soppi ñi nga xamante ni loolu mooy seen yitti bi waa ji tëbee ci kër gi euh, fekk imaam mu ngi ci kër gi di julli te waa ji moom gisoo te waa ji gisu waa ji dugg ci néeg bi làmbatu xool ubbi lu mu tuddati waaw gaal yi daal wër wër wër ba sonn gisu fa benn ci loo xamante ne soxla na ko muy poñoti bu àdduna waaye ndeysaan bi mu wëree xool li muy xool boole kam def ndànk bi yoon kenn ba ñu yëg ba noppi gisul li muy gis bi mu ñëwee bay génn foofee nag la imaam wax ak moom mbokk yi lan la Maalik ibn Dinaar wax li nga xamante ne moom mooy moom mooy waa jooju Maalik ibn Dinaar nee ko maada tabri loo soxla waa ji tamit am fit lool taxaw mu ne ko loo soxla waa ji ne tekk mu ne ko daxalta alayna daarana turidu mataa ad dunya fa lam tajid fa hal min axiratin wa diinin wa mawcida yow de nee nga dugg nga ci sama kër doon war pëñatik àdduna fekkoo fi dara ndax am na loo soxla tuuti ci wàllu diine wàllu àllaaxira ak wàllu waaraate waa ji ne ahaka desaan mu toogal ko ci wetam di ko bàkkal yàlla di ko wan ñàkk solo àdduna di ko wan ne mbir yi ci loxo yàlla la nekk di ko wan soo soxlaa mbir yi da ngay fëgg buntu borom bi subhanahu wa taala moom mooy al mu'ti al maani mooy al mu'izz al mudill ndeysaan dem ba xol waa ji gësamu ci màggaay yàlla subhanahu wa taala ci saa si waa ji nee ko imaam bi nee ko lay jëlal satala nga jàpp mu jàpp mu ne ko julli bi waa nekkii di julli imaam am ñaan du mu def ci ginnaawam fekk moom mu ngi toog julli na la muy julli ba noppi waaye ñaan bi mu ñaan waa ji dégg ko ñaan nga def na ci waa loo xamante mu toll imaam dafa yëkkat loo xam ne allahumma innahu daxala alayya daari wala anni faqir lam yajid indi shay adxaltuhu bi baabika ya gani fala turjicuhu bi gayri shay mu ne ko ee yow yàlla sa jaam bii de dox na ba dugg ci sama kër te maa ngi ku ñàkk la moo tax fekku fi dara yow yàlla mu ngi noonu taxawal naa ko ci sa buntu te yow yaay ki woomal ki ngal ngal bul ko delloo ci saa nga koy jox dara waaye waa jooju keroog ba mu fay génn hidaaya la génnaale mbokk yi nañu waxtaan ak nit ñi ci màggaay yàlla dañu waxtaan ak nit ñi ci mbindaafanu borom bi yëg ne loolu ci aslu tawxid la bokk yëg ne loolu mooy baasu tawxid dëgg-dëgg soo gisee ñuy jàngal nit ki tawxid mooy fexe ba màggaayu yàlla maanaam fees ci xolam kon suñu amee nit di ñu waxtaanal ci màggaayu yàlla di ñu waxtaanal ci kattanu yàlla di ñu waxtaanal ci man-manu yàlla di ñu waxtaanal yàlla dong mooy joxe mooy xañe yàlla dong mooy yëkkati mooy wàccee yàlla dong moom mooy toroxal moom mooy teral yàlla mooy joxe nguur mooy xañe nguur loolu dañ ko war di waxtaane dañ ko war a jëmbat ci xolu jaam yi yàlla na ko yàlla delloo ci suñu xol yàlla na ko yàlla def ci sunuy xol yàlla na ko yàlla def ci eh, suñu xolu waa réew wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.